d'accord boobu am na solo mais mais les grands pour ñu parce que euh, nan kii xale bi nee na euh, li ma des si waxtu bëriwul euh, après politique bi nag moom da ngay da ngay taf taf est-ce que yére bii nga sol gis naa ñu naan Mame Matar Gueye dafa dafa xëy suba rek bëgg fu nekk l'empêcher le tourner en rond dañu bëgg bëgg ñoo tere happy bëgg ñu tere enjoy donc loolu yëpp quand même lu diis la man man man li ma la bëgg sànq yaa ngi wax ne xeebuloo benn menace fu mu jógee parce que euh, am nga euh, quand même e, e, exemple loo xam ne euh, ci nga ci nga ci nga nga tënku ñu nangul la ko mais man li ma li ma bëgg a xam mooy est-ce que ndax fii tout le monde personne n'est parfait ñun ñun ay être imparfait lañu grand ñun ñëpp muy yow di man on a été jeune xëy na def nañu des choses dont on est fier et d'autres dont on est moins hmm? ñëpp nañu lu sa ñoo fote est-ce que yow yoon bi nga taxaw mooy yoon bi nga jublu nii taxaw di dénoncer taaru société yeeg taaru ñenn ñeeg xale yeeg yooyu ah est-ce que suba Euh, c'est une question euh, gars yi duñ dem li mat say yëf. ñu ngi koy ñu ngi jënti la xool piste la xool loqati say bagage dugal bi génnal ci vaar loqatil la ay yëf yoo xam ne mamata ba nga nekk xale xëy na nga doon def ay rasta xëy na def ay bagage euh, yooyu xëy na sa fi ñu nekk nii cosaan bi ñàkk mus mus nga fee ñëw sans patron bi rëkkatal la nga am noo demee ñu loqatil la loolu tegal loxo ne la mbàcc ci ginnaaw la nag mamata gay nag ñu ne yow yam tu suis pêcheur comme yaa loolu yaa ngi koy xalaat léegi comme que am naa sa whatsapp dinaa la yónnee sama photo 72 73. Hmm. bi jamono modd Michael Jackson xewal. ba Michael nga defoon ngam ndam afro ko yónnee <laughs> comme ça nga def ko PC bu may wax ba yem ci nga ne ko faa. noonu laay def noonu laay def léegi euh, dama bëggoon nag ñu bàyyi xel nii. que amoo benn kafaara amoo benn dossier ci ah dama la jox exemple te maa koy tuddaat bëgguma la woon soxna si. Mm-hmm. waaye yaa ma jëkk a ñooxu. Mm-hmm. muy euh, notaire boobu ñuy wax euh, euh, non c'est pas la peine. Ah, la lan la. waaw kii kii naka Cissé. te nekkoon ci parti réew mi. mais daf la jox Diop Cissé. Nafissatou Diop Cissé. waaw ah, dafa ma tooñ. sama yaay sa coow waaw. mais moom ma tooñ man du tooñ. su ma xamaloon kon du ma du foofu ah. <laughs> yaa fa dugg de. daa nga ni lu mu def na fi. <laughs> waaw moom sa coow Assane Diouf ba. waaw Assane Diouf ba nekk di live rek depuis les États-Unis di rajaxe rek. waaw teel kenn ñemewu ko affronté. waaw muy lëkkati ay dossiers yu garaaw. di génne waaw. saa wu ñu heure Assane jot na 9h ñëpp. waaw bloqué ak seen noy. waaw mu am moment. Hmm. ma ne kii lu tax nit ñi wax ak moom. ma daal di def benn vidéo. Hmm. parce que aw ma contact am aw ma whatsapp aw ma nu may wax ak moom sinon je l'aurais fait hmm. alors ma ne comme que il intervient publiquement je vais l'interpeller publiquement ma bu gàtt rek peut-être à peine dix hmm. ne bon euh, affaire u laa bëggoon wax hmm. Assane Diouf nit ñaa ngi dal si kawam diaboliser ko dama bëgg balaa ñu koy diaboliser nañ ko may nopp tuuti man jéem naa may ko nopp parce que dama jël saaga yi tege ko ne ah. ma daal ko may nopp ce que j'ai constaté mooy Assane pose des problèmes de démocratie. waaw mu ngi pose des problèmes de bonne gouvernance waaw. des de gestion de nos ressources naturelles. waaw waaw ma ci. li ma mooy yi mu koy enrobé ak i saaga. yu koy teg ma ne kon Assane Diouf. Hmm. Makhtar Gueye bu Jamra mu ngi lay ñaan. Hmm. dina tax sax ngis nit ñi gën a am sympathie ci yow. nga continuer di revendiquer c'est ton droit le plus absolu. waaye ngir yàlla bu ci boole saa saa waaw loolu rek laa wax waaw euh, l'observateur libération. libération sama yàq ma lu mel ni xame mataa bu jógee di jaay responsable d'une organisation di soutenir kuy saaga foo ma gisee kuy soutenir kuy saaga dama ne Assane waxal bu saaga. Ah. waxal ma li ma dem alors ma tontu ko bu saf nag ma ne ko. comme que yow da nga transhumé mais bàyyi leen transhumé ba noppi. Hmm. di bëgg entrer dans les bonnes grâces. waaw de votre pat nouveau patron. waaw pour wane ne jàmbaar nga. Hmm. seet gos as gor bu la deful dara. xas ko yàq daram tooñ na ma. ma ne ko nag yéen nekk ngeen ba Donald Trump rapatrier Assane Diouf. Hmm. nga xam ne damm nañ ay laafam. ngeen di doog a wax. lu tax bi ko Assane nekkee nekk si diggu ndëndëm il tirait sur tout ce qui yow kenn daaw la dégg man kott waxoon foo newoon parce que bañ ngeen. mu loqati seen i kafaar. waaw man nag comme que yàlla dimbali na ma je ne traîne pas de casserole. yàlla dimbali na ma je ne traîne pas de kafaar pour répondre à ta question. man rek ko affronté woon. benn kafaar yow. waaye moom porté ma ko plainte. Ah, comme non non sama yaay man saloo na ma ci génnee nànk euh, sama yaay la na fi. voilà kon bu ma kafaar si si. su ma amoon su ma amoon kafaar mais amoo kafaar daal. non non. aucun kafaar. na ñëpp wër. na ñu wër renseignement généraux yaa ngi wër. Euh, lobby homosexuel yaa ñu wër. lobby maçonnique yaa ñu wër mais mais ci homosexuel yi euh, yéen ak euh, of may ma li nga ñax kees yëpp may ma benn 10 minutes ma ma ma kii yéen ak grand fast track ñëpp nee nañu Matar Gueye mënul fast track bii nañu fast track hmm. homosexuel yi. Euh, dégg nga keroog moom Lamine Diallo wax na ko fu ne wax na ko sax si plateau fi nga toog ni nee na euh, ba ñuy euh, criminaliser viol dégg naa li ci wax ah mais comme communiqué nga si fii on on passe ba loi ba ñu war a modifier code pénal bi en tout cas pour donc criminaliser viol yi. dëxëñ dëxëñ waaw léegi voilà boo wax ne. abrogation article waaw wax ne voilà wax ne. dégg bu concerné mineur. pour ragaloo Sénégal ñu député gàcce ngalaama pour votre vigilance. mais laaj bi mooy est-ce que ragaloo boobu mooy na ragaloo suba ñu ñu utax beneen subterfuge pour bërëxal yooyu mu jàll. jéemoon nañ ko par le biais de certaines ambassades. ok et à cet égard maa ngi rendre hommage sa mbokk talibé maître Assane Dioma Ndiaye LSDH. Mm. Assane Dioma Ndiaye dafa xëy lancer des invitations. Mm. ambassades yeeg organisation euh, société civile yi. waaw fële ca euh, fondation Konrad Adenauer wala Friedrich le thème c'était nekkinu prisonniers yi dans les prisons. Euh, kon kuy intervenir waxal ci loolu. waaye ambassade u Hollande jóg je vais en terminer. daal di def hors sujet. Hmm. mais waaw Assane Dioma yaa ngi soo bëggee sax ñu Hollande ñu jàppale la financièrement nga def un plaidoyer allant dans le sens de dépénaliser l'homosexualité Assane Dioma tontu ko tontu je vais très vite. Hmm. tontu ko tontu bu responsable bu digne. Hmm. wéeru nag sur nos valeurs. alors euh, ñun ñu defal ko raaya bu mag euh, daal di ko désigner homme de l'année daal di nag dénoncer ambassade bi ñu ne Macky Sall waxal kii mu sàmm son devoir de réserve ndax amul droit dëkkam ñu autorisé fa ngóor jigéen mm-hmm. mu ñëw fii violer suñu affaire euh, suñu dégg nga euh, souveraineté ba ko fi indi xam nga ambassadeur boobu nu mu tudda mm. Piita la tudd santa Wang kon loolu doy na <laughs> <laughs> boobu de <laughs> boobu boobu d'accord léegi euh, euh, mamataar yi euh, of may juróomi minute laa bayalagoo ci góor jigéen yi non wax luy defar réew mi non non ci politique laa ñëw ah, ci doog mais xam xam nga la laa bëgg fii nag fii su ma tontoo rek bu bu bu bu ah, développé tak tak rek bu joxe ànd ak dak léegi RDS fu mu fu mu nekk depuis 2017 dégguñu leen si législative fi ngeen nekk waaw d'abord da nga may may booy apéris yi nañu réglé ah lu ñu xale yi Euh, Ousmane Sonko dafa dem place euh, Obélisque. ah da ngaa pro Sonko nga. waaw. wala doo présenté livre am. ah nga dem fa. Cheikh Yérim Seck itam jël sañ-sañam en tant que journaliste. waaw ko question. waaw les xale question bi man ànduma ci. waaw parce que dafa ne waa dégg nañ yaa ngi yar si kim dégg nañu ne sa jabar ibadu la. waaw dégg nañu da ngay muuraay. Hmm. bon le lendemain ñun ñu def déclaration. waaw ne ko Cheikh. jàppale baaxul. parce que. poser question à un leader si mbay mi ci éducation d' accord. d' accord waaye ci gëm-gëmam wóorul. waaw mën nañu day dérapage. waaw léegi boo xale am loolu rek laa yi. Cheikh Yérim dem tontu na ma tontu bu am auteur. Hmm. jokkoo nañu téléphone sax maa ngi rafetlu euh, auteur bi mu jël. d' accord léegi booy yooyu jóg. Hmm. dem ci Facebook bi partout. Hmm. daa ne ah Matar feeñ na nag. c' est un pro Sonko caché. d' accord ma ne leen maa tey. waaw nga baal ma ci kàddu gi ah. Ah, ah. bon bàyyi leen di jéem a tànnal nit ñi lu ñu war a gëm ak lu ñu war a. d' accord lu ñu war a àndal ñu war a àndal. Sonko la ko def c'est injuste ma dénoncé ko dama ko dénoncé de la même manière bi Macky Sall nekkee victime d'injustice en 2007. waa PDS complot yu ko fi woon. xëy def ay pétition pour débarquer ko kan moo bañ ne du signé du ñun suñu député moo fa bañ ne du signé alors te booba mënoon nañ ko ci dàq parce que il avait rang de ministre man mënoon nañ ma dàq parce que j'étais euh, président de conseil d'administration te booba Macky Sall nu doon dara. dàq nañ ko assemblée perte na mandat député am. waaw démissionné son mandat de maire. mais ñun ñoo dem Latif dem Canal Info ma dem wax. ñu défendre ko yéen ko. nekk. Euh, euh, objet de la même injustice ma rek ngeen jóg naan ma Sonko du pourtant Bougane Gueye Dany du fii ngeen ko accusé ne franc la foo leen ko teg. bàyyi leen bu nit ne candidat la ngeen dam ko ndëmb. alors kon nag réew mi nañu respecté we weggante te waa yow doo pro Sonko de nekkoo pro mais bu ma nekkee pro Sonko su ma nekkee pro lu ma ci nëb waaw mais nekkoo ko ma ne ma ne nekkuma ko ma dox si leneen du ma la tontu ah du ma la tontu ci loolu yow luus nga de la waaw bu yaboo yow yow yaa yaa booy affaire yi yéen a bokk waaw <laughs> euh. ah, ma léegi léegi euh, euh, présidentielle 2019 bi man dégguma ci parrainage nagi temps baa ngi dem eh, noppi